yaa hajaban sëriñ Masamba Kanni mbokki julliti taalibe yi kër Cheikhul Khadim ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général ku murit yal na fi yàgg loolu te ànd ak wér kilifteefu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke xalifa sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Busoobe Busoo Bangaaj xalifa sëriñ Busoobe Busoo sëriñ Alxaaji Falilu Busoo Cumbuleen xalifa sëriñ Masamba Kanni Busoo ak mbooleem njabootug sëriñ Masamba Kanni Busoo ñooy am mbégte di leen yëgal ak di leen fàttali bisub cant ak ñaan bi ñu baaxoo di defal seen maam seen sëriñ xam ni moo ko sancoon ci ndigalu Serigne Touba Xaadim Rasoul boole woon fa liggéey jàngale ak yar bés boobu la war a yam ak talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru gàmmu di le 26 novembre di ko yëgal bokki jullit yi taalibe yi njabootuk Seexul Xaadim gi bés boobu la ñu ko yëgal mboolem autorité yi préfet Abdoul Ahad Ka meeru Touba Abdou Mbacke Ndaw meeru Mbacke programme ba ci bis ba xëy jàng alxuraanul karim xasida tisbaar ñu julli bernde ginnaaw tàkkusaan ñu amal cérémonie bi ci teewaayu mboolem ñaan ñu yewé ñu ni bëss boole nak bokku na ci sabab si modi bëss bi nga xamni ci le serigne Touba khadim Rasul woné won yonenti bi serigne ma sàmbakan ni mu yama woon ak guddi gam waral sa yu bëss bi delu sété njabot gi àndandoo di ci ko ak di ci ñaanal serigne ma sàmbakan ni buso talaata lay doon ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru gam di le 26 novembre 2019 ci Touba daru khadim di dekk bopam bi nga xamni moko moo ci digalu serigne Touba khadim Rasul njabot gaa ngi di ñaan kep ko teewe bés bile yàlla na sunu borom fay liyu ci barké Cheikhul khadim xadim màggu sëriñ Masamba Kanni Bousso wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su bamba daa addis mu naa ko askay maji soob la woon moo neru bamba moo xay